boros tout droit Marfafa ko boros anginon. <laughs> maas ko koy maas koy maas giram waaye kenn du Elbandi muy noon El Bandit Bross tout uriskiyata dara jikko dara wa zar zar yoro dimla inna buna barke alquran comme wago le tout droit la sortie de grand homme kalmundo Pintu. Udah. Yahya le grand si kampay. Baye Fallou Kalmundur. Baye Fallou Kalmundur. Wow. -hmm. Calm Ndour a ngi noonu boo ko gisee nga xam ne mu ngi ci forme boo gisee nga xam ne liggéey na moo war a bëre ndeysaan dimanche le 30 octobre moo caat bu waalo ñu ngi noonu ndeysaan boobu ñu ngay nga de ay min zo sama tooma maas la jaay <laughs>

ndeysaan li sag la bu la neexoon nga defee ko Dakar wala fenen da ko indi sa dëkk il faut être fier de ses origines waaw kay Big Mama Boros El Bandi ci ginaaw Baba nunu Kor Mari waaye sama mbokk TV TV eh mu xaare eh, maas la jaay taar El Bandi Boros La Lionne, c'est... Aca mi ngi noonu mi ngi noonu di yegsi

Gorgor Gorgor Gorgor Hallelujah. mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi waaye mën a nekk rek ñoo ngi lay nuyu di la ziar rawatina nag mu amal baax ko bi nga xamante ni tey fii lañ fi daje mu am nag xew boobu mag bi am muy open press seen doom seen xarit seen jarbaat ñu koy wax Almadou am na combat bu lay am combat kat kat digganteem ak Thiatou Walo waaye avant rek dañ koy nuyu dalal ko bàyyi ko mu nuyu ñu ak champion ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk Mbale mbokk Mbale mbokki arrondissement Fimela mbokki région de Fatick mbokki Sénégal mbokki internet yëpp maa ngi leen di é a leen ziar di kontaan seen teewaay fii ginnaaw o ma sant yàlla nag julli si yéen bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax di ñaanal sama yaay yàlla ko yàlla xare aljana di ñaanal sama papa yàlla ko yàlla baax di ñaanal o kër Cheikh Seck Sarr di ñaanal sama sëriñ Cheikh Sine Khayri di Cheikh Benana doomu Cheikh Tani Bouya doomu Cheikh Seck Sarr di nuyu kër yi nga nekk Sénégal yëpp muy Tijaan Laayeen Ñaseen Njaasaan ñëpp bàyyi ma fépp bàyyi ma fenn waaw di nuyu nag waa Ndul yëpp waaw ñu bu jógee ñëw yor ba Fayaaba maa ngi leen di nuyu waa di nuyu waa Sine Sine waa Fatick waaw di suñu jox ñëw bi nag sama grand sama xarit grand Ismaïla Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax. ak ñoom grand laajir sama fan si club yëpp fekk mu soobee calme nga nekk maa lay nuyu bu baax di sax si ñaan si combat bi nga jublu donc incha allah yàlla may ñu ndam. si combat bi nga jublu mu am na ci loo jógee war a rattrapé woon war a dajeeg caatu waam yaakaar naa micro bi micro bi làmb naka la waajal nii combat bi. waaw combat bi waaj nañu doon suñu mbokk génn nañu voyage ñëw liggéey lu wóor waaw kon ñu xam ne li ñu liggéey sax macha allah kontaan nañ si. am nañ si yaakaar ne boo xamante ne euh, bu ñu jàppee caatu wàllu yàlla bu yàlla dina leen jënd incha allah. nga liggéey ci combat ah gisee ni ma tolloon avant avant may def jëloon naa fi boo xamante ne yaakaar naa ma yaakaar naa ma lu bëri naa ñëw bi demee maa ngi woon def sport yu bari maa ngi woon suivre di defee ruj bi laa di ko def ci ruj bi lépp pour defaraat sama forme pour amaat sama lu ma lu ma pertoon si lamb daal liggéey naa si lu bëri si sport waaw parce que nekkoon naa fa ay coach yoo xamante ne teg nañu si yoon yoo xamante ne euh, macha allah daal man bi ma jàppanteeg ñoom xam naa ne ñii ay coach professionnel lañu teg nañ ma loo xamante ne lu métti waaw ba ma xam ne man su may dox sax xam naa ne man li nekk si man su nekk si man moom tam liggéey jënd ko bëri te nga mën a démb li mu wax lan nga ci bëri. non moom champion la li ma wax rek man peut-être yàlla moo lamba crédit rek te yàlla moo def te li war a am si jàmm. mënu ma si dara keneen mënu si dara peut-être que mën naa wax ne defet ma am si Eumeu Sène Junior moom dama si moom mais lamb cadre lamb boole ma ak caatu man lamb dama ciy am cër bu mot si wallaay la si. peut être nag jox naa ko cër daanaan a champion la mais wallaay asi fi ma teg si membre bi spécial waa la mais nag respecté naa ko mais incha allah le plan commence dañu xam ne bu ñu bëggante maa moom dañu xam ne kii lamb moo ñu lamb moo tëri mais maa moom combat maa wax loolu si làmb parce que si mu combat maa ko ma seen si yow peut être amul naa accès de confiance boo xam ne loolu dootu dootuma dal si làmb démb mu nekkoon tey tey fi place bi ma nekk am fi nekk parce que nekk naa xale boo xamante ne man ñi ma xam yëpp li may bëree man yàgg naa ko di wax ba ma seen si yow su ma ko jàppee dama koy def ni moom moo koy nuyu au passage parce que turam bi ma koy tudd yàgg naa di wax ne su ma ko jàppee làmb ji jeex te wallahi azim dama ko doon daal yàlla moo def naka sudul noonu rek te ma koy sant yàlla bu baax moom di ko ñaanal ndam bi jikko mais a nasib ba mu kii Thiatou Walo maa moom bu ñu bëkkante dañuy xam ne man du ma bëre kat man mbër laa. mais Kallu. bu gis ko baax taxaw nga ko yàlla. adversaire moo tax nga ko yàlla. non du question sax du moom moo tax ma voyagé parce que te euh, yoon bi dafa fekk euh, bi may jàpp naa sama yoon ba pare ñu door a jàpp combat bi que man ñi ma ñi ma encadré maa ngi maa leen nuyu au passage ale maa ngi nuyu bu baax ak ñoom Père Diokre maa leen nuyu bu baax parce que su ma génnee tey voyagé tey ñoom ñoo tax jàppale nañ ñu bëri jox nañ ma xaalis bu bëri yóbbu nañ ma teg ma ay condition yoo xamante ne fayal ma ay postes professionnels nga xam ne ñoom ñëpp lañ sama élèves yu réussi kon nag maa ngi leen nuyu au passage maa leen ak fekk jokkoo ak yeneen ñu si def ci ma nekkoon Ablaye sama mag la sama lépp Abdoulaye Cissé maa ngi koy nuyu bu baax doomu maram waaw maa ngi koy nuyu bu baax parce que mënu ma ñàkk a wax si moom parce que dafa sonn si man ak sama gars yi Moussa xam nga ñoom Pape Elas bàyyi ma kenn ñi ma fa nekkaloon ñi ma doon jàppale ñoom Grand Thiaré Sarr xam nga ñoom Kaabu ñoom Fifty Cent mais mais mais mais Thiat dafa am lu muy wax ñoom nee na Boy Niang dafa war a daje ki nga xamante ne mooy Balla Gaye yaakaar naa itul Boy Niang nga nekk Guédiawaye nee na caabi bi indi kii bi moom moo ko yor incha allah suba dimanche dana ko def ci loxo bi nga xamante ne mooy Balla Gaye lay wax ci caat xale la bëgg bëgg a tur rek te xam nga boo leen gisee temps yëpp passe bu ngeen tapé si YouTube mu ngi fa di wax rek ñun amuñu jot wax lu mu waxoon yëpp wax nañ ko si contre Eumeu Sène Junior kon làmb yéen nañu ñu bëri man kenn mëntu maa wax loolu loo xam ne si làmb man damay ñëw rek jëf parce que ñi ñu nekk sama ginaaw wallaahi si dama dama leen a war a fay ay bopp dama juum dama leen a sonal dama leen a tooñ. kon nag bor boobu sama xol la nekk te du ma ko mën sa wax mais le 30 le 30 incha allah day xam ne kii lii moo taxoon mu génn te kii lii la téyoon si xolam. a jëm. moo moo wax la leen moo wax la leen caat du xeex caat du xeex du bëri. caat maa bu ñu taxawee mun naa ko dóor dix coups doo du fay. mun naa ko dóor dix coups du fay. caat maa ko sut mato da dàq maa ko gën a gaaw ay loxo bu dee bëre jàppante lamb lu jeex kon lu muy wax noonu yëpp day nax waa Guédiawaye rek. mais nee na bu dee mbëru ba moo gën a nekk mbëru mbapat. non xam mbor bu nekk si yoon. comme mbor boo xamante ne dafa tegle ay victoire dafa daan si victoire la jël nii la mën a réagir lii mooy sa réaction lii mooy réaction man du ma ko si coloré si lu dara dama koy bàyyi rek mu bëggal ay fan sama dama mu bëggal waa goxam mais bu bés ba day xam ne da doon nax ay supporters. waaw non si dara Guédiawaye bi trois fois parce que daan naa Samba daan euh, Maxi Crési kon kon Guédiawaye man amul leneen lu nga xam ne teg comme comme ak ama seen si dama juum rek lamb moo demee noonu rek mais nag Guédiawaye di sama loo koy loo koy wax jaakaar non Thial ma koy wax lu mu lay yóbbante nee na a taxaw ñu naan na taxaw na ñu taxaw ñu naag maa moom dix minutes deux ñu taxaw si ak ku si teggi tànk ginnaaw nañ dab kase te wóor na yàlla wala ma asi maa la wax ne caat man maay dox si kawam te du teg dellu si tànk ginnaaw ca war a siiwee man maay dox si kawam. man maay dirigé. nee na moom Sonko. mais gars yi dañoo xewal may dama lay wax ñu may may minute man sama combat ñëpp xam nañ samay minute ñu ñëw. sama man aw ma combat boo xam ne ne damay nekk fii di ma bëree moom gars yi ay ñoo xaw a toll doole non dañ maa sas mais bu bés ba xam ne kii yëpp nañ ko dañuy xam ne mbañ mi ñëwoon le le xam nga le 10 le 10 octobre ak ki ñëw le 30 octobre bokkuñ. waaw. waaw maa ngi woo ñëpp di si woo waa il bi yëpp nag waa il bi bàyyiwuma kenn Omar Lodj Omar gis naa leen ñoom ñoom Lamine Lamine Seydi maa ngi kontaan si ñoom bu baax waaw di nuyu nag luy coor léegi mu fi mais sama combat mu ngi si bu baax à mu ngi woote jàpp na si combat ba xam ne da say jàpp maa koy nuyu bu baax di nuyu nag ñoom ah laa ji suufam di nuyu nag ñëw fii si dëkk bi ñoom dégul maa ngi koy nuyu bu baax sama grand bu baax la sama lépp la ñoom kooku Ousmane maa ngi koy sama lépp la sama grand bu baax la sama nijaay la waaw mooy magu bu baax di nuyu nag euh, maa ngi lay bu baax di nuyu nag waa Euh, Issa Assoufou maa leen nuyu baax di ñaanal waa dëkk bi yëpp jàmm si woon ak Karim Sène dégg nga combat bi maa ngi ko si woo bu baax ne ko grand combat la te mbooloo moo nekk suñu ginnaaw waaw te soxla nañu mobilisation boo xamante ne tey moom moo si war a jàpp si woon ak Matar moom kenn ñëpp xam nañ sama diggante man ak moom combat bi combat am la comme ni ñu ko daan defee saa su ne Kéba Kandé sama xarit doomu Seck waaw sànq ba léegi moom mooy woo di jàppale ñu bëri si combat bi jox na ma xaalis bu bëri maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko naan nag combat bi combat bi ak euh, Khadim Diagne borom Pikine euh, ak mu yaayam Mama Yacine Touré bu Cheikh na Cheikh maa ngi si woo si combat bi waaw bàyyi ma kenn képp ku may jàppale ak ñu nekk bitim réew moom Thiaré Sarr ak waa Jonwaar dañoo sonn si man ku si mel ni grand Jibi Ndong Jibi maa ngi koy nuyu baax parce que combat bi jàpp na si ba ma xam ne jàpp na si parce que chaque jour bu ma di ma expliqué loo xam ne loo manqué woo ma man boobu amul lu ma koy wax toujours di ko ñaanal Ahmed Aïdara aussi jàpp na si combat bi Ahmed Aïdara Ahmed doomu il bi la fii la dëkk doomu il bi la jàpp na si combat woo na ma ba dem ba Dioma xaaj bu bëri. Géejawaay la dëkk jaxase wu ma ko waa Géejawaay nag mais nag suñu mag la suñu lépp la. waaw di di un homme social si jàppale ñëpp woo na ma jàppale na ma man maa ngi koy nuyu di ko ñaanal nag lépp lu jub ak ñeneen ñoo xam ne nag bëgguñu ma lim seen tur waaw suñu ma lim seen tur mais nag maa ngi